Euh, parce que actualité s'impose s'impose gravement parce que dañ fi am ay jamono yu yées ay euh, perturbations au niveau de l'université concernant des étudiants de la faculté de droit à propos de leurs élections tey jii nag dañ fiy dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté koo xam ne jeune la boo xam ne il est étudiant à la faculté de droit aussi en même temps activiste ci mouvement bi di mooy ñoo lànk léegi moom mu ngi bokk ci benn parti parti boo xam ne ci élection yi lañ nekkoon doon jànkonteel ak ñeneen ñi di parti Renaissance ci kaw naka noonu dañu amoon ay problèmes entre étudiants il y avait des bavures entre des étudiants des bagarres aussi des saccages léegi tey jii la raison de son venue c'est mooy de sa venue je veux dire c'est est-ce que ñoom ñoo doon xeex ou bien ndax ñoom ñoo def li di mel yàq yi ñu namee ko foofu université laata loolu dama koy bàyyi mu nuyoog internet yi DKR 221 ñu xuus ci waxtaan bi ndànk-ndànk salaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi Abdoulaye maa ngi lay maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. Euh, affaire yi. sant yàlla alhamdulilah. bu baax. mais Abdoulaye euh, kan mooy Abdoulaye Touré Pape Abdoulaye Touré dañ koy dégg activiste ou bien étudiant. étudiant. étudiant kese. Abdoulaye Touré étudiant activiste. waaw donc euh, nekk ci université Cheikh Anta Diop de Dakar fa laay jàngee en tout cas faculté des sciences juridiques et politiques. Hmm. donc on peut dire que euh, Abdoulaye Touré est un étudiant aussi activiste en même temps léegi Abdoulaye Touré dañu bëggoon nga ñëwaat ci tuuti tuuti ci ci ci lu ñu nemmeeku foofu noonu ci euh, université Cheikh de Diop gisoon nañu fi ay jamono ci ginnaaw ay semaine ci ginnaaw amoon ay yëngu-yëngu concernant yéen ak waa parti bii di euh, Renaissance concernant vos élections amicales bi bëgg naa nga ñëwaat tuuti lan moo waral perturbation yooyu. waaw juste une précision man bokkuma Renaissance coalition COCC laa bokk. article 118 119 bu COCC donc liste éthique laa bokk mais suñ coalition tour bi noonu la donc euh, lu fa xewoon nag je pense que jërëtul sax ñu ciy revenir at parce que ñëw nañ ci ñëwati ci ñëwati ci et ñu bëri gis nañ vidéo yi ak euh, yenn image yi nga xamante ne mooy moo fa jotoon xew ñu koy ñaawlu nag en aucun cas mënuñu koo rafetlu muy les événements ou bien les actes de vandalisme et de saccage bi amoon université à la suite de la proclamation des résultat bi nga xamante ni Campusen moo ko proclamé jox ñu ñun waa coalition COCC victoire ñeneen ñi malheureusement et à notre grande surprise ñu amoon zéro pour cent zéro voix. ci kaw noonu dama bëgg nga teg sa loxo foofu euh, Campusen dañuy déclarer euh, résultat yi ba pare ou bien résultat yi génnagul parce que maa ngi dégg gars yi di wax résultat génn na wala génnul ndax résultat am na. xam nga élection amicale dafa am nu muy demee da ngeen di xëy 8 heures la plateforme bi di tijjeeku Campusen 18 heures mu tëj. huit heures ba dix huit heures voté nañu def nañ lépp lu ñu waroon def dix huit heures campuseen tëj dix huit heures six ñu proclamer résultat ci biir proclamation résultat yooyu ñu gis ne coalition article cent dix huit cent dix bu COCC a enregistré six mille trois cent quatre vingt quatre voix l'autre coalition ñu koy wax article dix huit cent dix huit du moins Luc Alex am vingt voix mais suñu adversaires yi muy la grande coalition la la la coalition gagnante bi nga xamante ne mooy liste renaissance fu mu bokk ñoom ñu am zéro pour cent maanaam zéro voix ce qui veut dire résultat génn na Campusen nee na diw moo gagné diw moo perte mais est-ce que ñoo ñu zéro pour cent ak zéro voix yi yoon la je pense que loolu technicien yi nekk Campusen ñoo ko mën a ñoo ko mën a leeral mais pour répondre sa question proclamé nañu résultat wax nañu ko gagné même su fekkee ni beneen parti bi zéro pour cent la looloo waral ñoom doon ñoom ñoo doon xeex wala yéen yéen a doon xeex laa bëggoon a xam question bi. waaw man question boobu dama la koy delloo wala ma delloo ko parce que ndax ba pare muy xeex. ku gagné ba man parce que question boobu day retombé si lan moo tax sanction yu dal sa kaw euh, te am na ñoo xam ne dañ doon xeex te ay daan dalu seen kaw. waaw su fekkee ni cadre bi moom. je pense que war na leer ci bopp ñëpp nit mënoo gagné ay élection ba pare di war di def ay acte de vandalisme wala ay saccage pour looy réclamer pour lan yow nee nañ la yow yaa gagné soo jubilé wul kay waroo yàq. mën na am ci kaw ñoom ñu song leen. non ñun euh, bu instruction bu ñu jotoon mooy na ku nekk dem toog chambre am provocation avant élection yi sax mosuñu koo tontu mosuñoo tontu benn provocation te kenn xamewuñ ci violence kenn mosuñoo gis ñu yo xeer. biir université di xeex wala di jàmbaarloo wala di détruire ay eh biens appartenant à tous les étudiants loolu musul am donc sanction yi nag ñu bëri dañoo foog ne violence yeeg acte de vandalisme moo tax ñu sanctionné ñu alors que du loolu am na ñoo xamante ne ci beneen camp bi peut-être looloo tax ñu sanctionné leen mais ñun coalition article 118 119 COCC du loolu moo tax ñu sanctionné ñu. d'accord conseil de discipline bu université Cheikh Anta Diop entendre leen est-ce que entendre ci kaw entente boobu noonu euh, ndax yéen dañu leen sanction san yow nga koy wax see biir wax léegi-léegi sanctionné wuñu sanctionné wuñu leen ndax acte de vandalisme mais dañ leen sanctionné ndax leneen ci kaw leneen loolu laa bëgg a xam ndax lan lañ leen euh, sanctionné waaw ñun dañoo dem avant loolu dafa am leen lu ñuy wax euh, une commission d'instruction ci faculté yi lay nekk mu woo ñëpp mu déglu leen après ñu soog dem conseil de discipline suñ bu ñu demee ci conseil de discipline ba kenn interrogé wu ñu ci ay wàllum acte de vandalisme wala violence même recteur xam na ne ñun COCC nous nous soo mêlés nii de près nii de loin ci ay acte de vandalisme wala violence kenn xamewuñu ko donc lu ñu doon toppee mooy message bu ñu yónnee doyen jour bi nga xamante ne jël na communiqué annuler résultats yi te ñee dugg lu ñu recours respecté wuñu procédure respecté wuñu forme te moom l'année passée mu ne woon il est incompétent pour wax ci ay résultats ren mu ñëw génnee communiqué annulé ay résultat xaarul communiqué wu Campusen xaarul technicien yi wax lan mooy le vrai problème le pourquoi suñu adversaire yi enregistré zéro voix xaarul ci loolu yëpp dara en moins de vingt 24 heures mu génnee communiqué annulé suspendre euh, annulé li nga xamante ne mooy résultat ñun bu ñu déggee loolu mu metti ñu ñu bind benn message de protestation je pense que war na ci réseaux sociaux. lan mooy continuer message boobu. bon si vous le voulez bien. Ah, dina dina ko mën a jàllale. donc euh, kiiwu message boobu lan na kese la mooy dañ ko laaj ci biir message bi depuis quand vous êtes compétent à se prononcer sur les résultats des élections parce que l'année passée moom moo ko waxoon. bu ñu ko nee ñii dañuy utiliser ay procédés frauduleux pour gagner maanaam am nekk en complicité avec peut-être des techniciens ou bien des agents de la Sonatel Euh, ay puces yu seen i adversaire pour que jour élection du ñu mën a émettre appel du ñu mën a recevoir appel yooyu nekk ay procédé la moom dafa ne moom il est un juriste il n'est pas un technicien il n'est un informaticien donc les canaux yi nit ñi di utiliser pour gagner yoonam nekku si il n'est superviseur et que résultat rek moo ko ñor donc tey mu ñëw def le contraire de ci lu mu ñu waxoon l'année passée ñu ne ko nag toute la communauté universitaire est déçue par votre décision parce que lu mu bon bon waroon nga xaar ñee am lu ñuy kaas nga xamante ne ñoom nee nañ zéro yi du no du jaaduwul ñoom ñu dugal recours recours boobu suñ ko dugal loolu la texte yi wax ñun lu ñuy wax texte euh, faculté bi moo ko wax charte d'engagement yi looloo ca nekk dañu ne la soo demee élection résultat yi génn nga am looy protester wala loo d'accordul da ngay bind recours nga adressé ko administration administration bi au bout de 72 heures mu organiser li nga xamante ne mooy assemblée de faculté assemblée de faculté boobu ñooy apprécier les motifs de votre recours xool ndax est-ce que dañ ko c'est recevable ou c'est non recevable loolu yëpp dama dara amu ci assemblée de faculté amul recours amul doyen génn annulé ay élection yoo xam organisé wu ko parce que élection yi ministère de l'enseignement supérieur ñoo koy organisé donc annulation su waree am foofu la war a jógee mais pas ci moom ñun nag bu ñu gisee loolu mu metti ñu ñu bind message de protestation laaj ko depuis quand ne ko nous ne sommes pas décision de de de de d'annuler les, les résultats que si vous voulez une année balance maintenez votre position monsieur le doyen donc yooyu moo nekk contenu wu suñu message bi te nëbbuñu ko te bu ñu demee ci conseil de discipline assumé nañ ko bu ñu laajee ndax yónnee ngeen message ñu ne lañ yónnee nañ message mais message bii la ñu yónnee et que nañ ko. ci kaw noonu euh, waa conseil de discipline bu université damay laaj sax ñoom ndax entendre nañ kenn ci yéen ndax ñaat aussi tamit ñaata ngeen woon. ñaata ngi ñaata lañ jot a jàpp ñoo xam ne ñoo envoyé message bi ak ndax waa conseil de discipline tamit jot nañ leen déglu benn par benn. waaw xam nga question yi dafa am solo parce que bëri na ñoo xamante ci ñun lañ bokk yónnee nañ message kenn convoqué wu leen. yónnee nañ message kenn convoqué wu leen. loolu mu nekk loo xamante ne c'est une peut-être c'est une convocation sélective. bu bu bu xaw nag ci ban critère lañ ko teg ba ne nañ nañu convoqué ñii nañ bañ a convoqué ñii xaw ma beneen bu ci topp am na ñoo xamante ne yónnee message ñu convoqué leen ci conseil discipline bi. ñoo xam yow ci ban kaa nga bokk. man yónnee naa message et que assumé naa ko. mais am na ñoo xamante ne yónnee wu yónnee wuñu message jaaruñu commission d' instruction et que ku jaarul commission d' instruction kenn waru la woo parce que balaa ñu laa woo obligatoirement da nga war a jaar commission d' instruction am na ñoom jaaruñu commission d' instruction ñu woo leen ci conseil bi. jour conseil bi aussi également par groupe la ñu doon dugal ñun waa coalition CVCC dàmbale xamuñu ne xamuñu woon sax d' ailleurs yan sanction la ñuy balaa ñuy ñëw ci conseil bi. ay groupe de 18 personnes. ma dugaloon na leen di leen poser ay questions collectives collectives du moins ñaar nit ñetti nit ñooy tontu ñeneen ñi amuñu sax possibilité pour défendre seen bopp. alors que en matière de discipline la responsabilité et est individuelle parce qu'il s'agit de l'avenir de ces étudiants bi nga convoqué étudiant soo ko xasee ba convoqué rek l'affaire devient sérieuse da nga ko war a jël au sérieux mais nga convoqué ay étudiants jël leen ay plus de dix-huit nga boole leen ci groupe laaj leen ñaari question ñetti question ñaari nit ñetti nit tontu ñeneen ñëpp nga leen ok on vous remercie sanction yi génn nga aj leen ñu bëri ñoom ñëpp amul kenn koo xamante ne COCC nga bokk dem ci conseil de discipline bi génn faak relax wala nga génn faak li nga xamante ne mooy mooy réprimandé dañ la aj ñu ku gën a tuuti luñ ko aj deux ans la ñeneen ñëpp ay cinq ans Euh, deux ans lañ am. d'accord ci kaw noonu yaa ngi wax dix-huit personnes lañ doon duggee euh, damaa bëgg xam juste rek est ngeen woon exactement parce que wax léegi léegi par dix-huit ngeen doon dugg la conseil ci sanctionné maanaam soo boolee réprim ñu ñu réprimander ñooñu noonu la maanaam ñeneen ñi dañ leen relaxé dañ leen toppewuñu leen dara mais quatre vingt la ñu la ñu la ñu avertir ñii ñu rep ñu réprimander ñii ñu sanctionné leen. donc euh, man sama groupe bu ma duggandool dañ ma booleeg ay coordonnateur de liste trois la ñu woon man sama groupe groupe de trois la mais ak ay coordonnateur de liste lañ ma boole ndool dugaloon dugaloon ñaari coordonnateur muy lamin Touré nga xamante ne moo nekk suñu liste éthique ak di Diop bi nga xamante ne moo gérer euh, liste lumière ñun ñu boole dugg alors que man je ne suis un coordonnateur de liste je ne ni un coordonnateur nii le coordonnateur de la coalition je ne suis qu'un membre bi milité ci liste bi ñuy wax éthique donc man ak sama yeneen naataango yi ñoo yem même statut même niveau. mais COCC nag. COC moom laay wax dama ne la xam nga COCC mooy coalition bi ñaari coali ñaari co ñaari co coordonnateur lañ am muy Marcel Diédhiou coordonnateur liste éthique parce que moom bokk na ci liste yu gën a mag ci biir coalition bi ak euh, Moussa Gueye Dessalines euh, moom mooy coordonnateur euh, rupture. moom tamit nekk deuxième liste bi nga gën a bi nga xamante ne moo gën a rëy ci biir coalition bi ñoom ñaar lañ jël ñu nekk les deux co-coordinateurs de la coalition. mais néanmoins am nañu coordination boo xamante ne ça regroupe les dix coordonnateurs des des dix listes chaque liste am na benn cordinateur te ñun suñu liste par contre coordonnateur la am ak secrétaire général Lamine Touré mooy secrétaire général bi Marcel Diédhiou mooy coordonnateur bi. à part loolu ñeneen ñu ci nekk ñëpp ils ne sont au même titre même pied. mais man par contre loolu jaaxal na ma trop le fekk que ñu boole maag groupe ci coordonnateur yi duggandoo loolu maak ñoom comme si que dafa am. benn loo xam ne euh, d' accord léegi man damaa fort ci web ab wéeru wéeru béy que message bi nga yónnee kooku directeur suñu rek recteur euh, université doyen bi way doyen nga ko yónnee waa d' accord d' accord rek message boobu nga yónnee euh, du sa message du sa numéro personnel carrément bu ñëpp xam nga ko yónneewee beneen numéro nga ko yónnee. non non non man loolu moom loolu moom ay waxu xam naa ay waxu mbedd la man Pape Abdoulaye Touré lépp tellement que dañoo bëgg loo xamante ñun lépp loo xamante ne jàpp nañ suñ ko defee suñ toppee ñu fiir suñuy responsabilité duñ ko def parce que on aspire à être des dirigeants à être des responsables demain responsabilité bi ngay nekk xale nga koy jàng sama numéro laa jël jël message bi dugg ci numéro doyen yónnee ko message de protestation bi et que ma assumé ko. bu ñu ma woowee conseil commission d' instruction laaj ma dama ko assumer bu ñu ma woowee conseil de discipline dama ko parce que ci biir message bi amul lu garaw lu fa ne amul ay propos injurieux menacé wuñu. ñoo ngi wax euh, ba ñu leen convoqué fay di conseil de discipline ñoo ngi naan euh, continue message bi da ngeen insulté kii di doyen est ce que loolu da ngeen koy da nga koy firndeel wala. loolu je pense que dama koy bàyyi appréciation sénégalais yi ñuy seetaan wala nga dem ci université bi nga jël sa micro nga tàllal étudiant yi. actuellement toute la communauté universitaire particulièrement les étudiants ñoom ñëpp ak décision bi daf leen décevoir daf leen décevoir c'est une décision de honte parce que foo tourner man depuis sanction bu mu juddoo bu mu génnee ba léegi li may jot ci ay appel ak ay message mënuma ko sax tontu sama nombre de discussion yu mu am ëpp na deux mille cinq cent et quelques di dem ci depuis boobu ak léegi rek te ku ci woo lenn rek la lay wax xamee wuñ la violence mosu ñu laa dégg ci violence dañu laa tooñ dañu laa ciblé kese ce sont les mêmes appréciations nit ñu di am. mais ciblage boobu laa bëgg nga teg sa loxo. parce que tamit eh, yow umpale wu ñu ko activiste nga tamit léegi est-ce que mbir mi politique la xasuwu ci laa lay laaj daal. bon je ne sais pas peut-être loolu question boobu ñoom ñoom ko war a laaj mais ñun suñuy appréciation yu ñuy def daal mooy amul fenn foo xamante ne conseil de discipline war na fa mën a sukkandiku aj ma man Pape Abdoulaye Touré cinq ferme ne du ma ci benn université wala établissement public. sur quelle baas amul base bu légal et que d'ailleurs beneen bu ci topp mooy ñun suñu contenu message bi amul saaga amul menace de mort parce que yooyu lañ doon laaj ci biir conseil bi bu ñu ñëwee ci conseil bi au lieu ñu laaj ñu ci biir contenu bi man j'aurais dinaa d'accord suñu doon laaj pourquoi ngeen di ngeen di laaj doyen depuis quand il est compétent pourquoi ngeen di remettre en cause sa compétence boobaa nañ indi ay réponses yu leer nañ teg ko parce que réponse mi ngi ci biir message doye ci boppam wax nañ ko ni l'année passée yaa ñu waxoon vous étiez incompétent donc depuis quand vous êtes compétent donc c'est une question il n'a qu'à nous répondre beneen bu ci topp mooy suñu toppee woon aussi également ci suñu dernier paragraphe message fu ñuy wax ni nous avons gagné les élections et nous n'irons pas nous n'irons pas aux à d'autres élections si vous voulez une année blanche maintenez votre position monsieur le doyen loolu mënoon nañu wax ni sax lii da ngeen nekk di menacer à une année blanche à donc te boobu boobaa aussi am nañu ay réponse pour tontu ci question yooyu parce que ñi ñi doon def ay actes de vandalisme ay acte de violence ñooñu ils étaient sous le coup de la colère n'est-ce pas ñooñu ils étaient sous le coup de la colère ñooñu colère moo tax ñu amuñu maîtrise ñu wàcc def loolu ñun tamit bu ñuy bind suñu message on était sous le coup de la colère et pourtant am na ñu masse pour wàcc def ay actes de vandalisme ay ay saccage ak ay actes de violence mais lu tax defuñu ko parce que même lu ñu nekk meroon nañ trop bu ñu gisee kiiwu doyen parce que dañoo xam ni tegul fenn communiqué boobu pour annuler résultat yi su ko ministère defoon du ñu am lu que moom ministre le ministère est à sus à des élections yu mu organisé mais tamit à travers mu fournir ñu ay explications yu suñu bopp yu mën lu mën a dugg suñu bopp. voyez un peu même le le communiqué de de du Campusène boobu loolu xanaa danga koy wax nit bu amul xel. parce que mënoo toog yow nga maanaam élection yi jàppal ne comme comme plateau bu ñu la tegal benn euh, écran bu ñu la tegal yaa ngi suivre évolution wu élection yi de huit heures à dix huit heures di de temps nga toog gis ne beneen parti bi seen i voix enregistré wul et lu la teree ci biir kii bi parce que am na fasek bu ñu amee dysfonctionnement ci plateforme bi en pleine journée la ñu suspendre élection yi ñoom Campusen ñu tiim plateforme bi di gis courbe bi ñii di yéegal ñii di wàccal ñu xam ku raw ak ku voix bi enregistré nga dem ba dix huit heures dix heures de temps après les votes nga nga ñii am zéro pour cent nga génn naan ñii seen seen voix enregistré wul parce que dysfonctionnement dafa am. ci kaw foofu nga baal ma ci kaw foofu laay euh, wax ni juste que euh, yaa ngi doon wax léegi sànq ay procédés euh, frauduleuses yoo xam ne ñoom daan nañ ko utiliser lii di parti boobu noonu ci ay at yu mujj léegi yéen da nga yaakaar ni ñoom dañ doon utiliser genre procédé yooyu ñu ñu ñu coincé leen wala ndax yéen. tamit da ngeen laale ci mbir boomu waaw xam nga tey euh, ñun man loolu du samay wax procès de fraude yooyu du samay wax waxu ñi nga xamante ne dañoo bokk ci ñun te nekk ay liste nekk ci ñun ñoom ñoo ko reproché ñoo ko doon wax doyen. et que beneen bu ci topp mooy déggoon nañ tamit après élection yi ñu ne ñun ñoo ñoo leen may zéro pour cent ma ne leen ñun kon suñu jàng bi dañ bàyyi jàng dem toogi dem taxawaalu ji te xam ne amuñu xel nu ne sommes pas intelligents man nga teg ne moos man ak dinañ dem élection mu leer ma ni loo lu mu bon di nga voté sa bopp. ma lay may 0 pour cent di saltal sama victoire mais 6000 voix la lañu am plus de 6000 vent 6384 mais ñu mayoon leen benn 3000 4000 5000 voix sax ñun ñu gagné élection yi du ñu am lu ñu kaas su fekkoon ñun amoon nañ possibilité wu may leen 0 voix foofu la ñuy jëm ak ñoom may leen 5000 et quelque wala 4000 am suñuy 6000 voix gagné élection yi coow coow du jib ballu tàkk donc thèse boobu nañ ko génnee tege ko ne mais tamit avant ñuy dem élection waxoon te woon nañ lu leer. que ni kii tente de frauder d' entrer dans la dans plateforme pour frauder suñu la jàppee dañuy remettre sa compteur à zéro et que ñun boobu lañ la ñuy am jusqu'à que Campusen génn ak avec des techniciens ak ay explications yi mën a dugg suñu bopp nañu lii moo tax ñu kii ko. su ma la déggee ñoom daanaka dañ doon jéem a fraude euh, utiliser lii di fraude pour euh, gagner élection yi léegi ci kon naka loolu affaire këpp seen kaw. mënuñu à 100 pour cent mais moom la ñuy jàpp ba keroog ñu ñuy jox beneen explication bu bokkut ak bii. léegi lu may laaj mooy est-ce que lan mooy expliquer ñee ñu sanctionné leen deux ans yéen ñu sanctionné leen cinq ans. xëy na peut-être moo tax ñu bëri naan affaire bi politique da cee lax da cee rax du moins parce que. moo tax ma laajal la question bi foofu laa bëgg nga dugg. waaw parce que tout tout simplement man Pape Abdoulaye Touré sànq rappelé woon naa ko je ne suis pas euh, euh, euh, ni coordinateur d'une liste ni coordonnateur d'une coalition. du ma dirigeant benn liste du ma dirigeant coalition je ne suis qu'un membre simple au même titre que les autres donc su fekkee man dama yónnee benn message boo xamante ne ñoom ñoom rek euh, euh, conseil de discipline bi ñoom dañuy nekk di fen askan bi conseil de discipline et je parce que lu ñu def teguñu ko ci benn dëgg ñun lu ñu def toppeewuñ ñu ko sax parce que suñu ko toppee woon mérité wul sax une semaine de de suspension balaam la mën a am wala avertissement wala ñu réprimander la au pire des cas au pire des cas la parce que message bu ñu yónnee contenu message bi ñoom lu ñuy toppee mooy saaga nday doyen yónnee ko ay message bi ko saaga nday yónnee message doyen. Euh, menace de mort mais est-ce que doyen. non dafa nànk rek moo fa laay ñëw euh, mena yónnee message doyen menace ko de mort ba pare ci biir message bi ñu ne ko dinañ dem sa kër taal sa kër. ñu ma waxee loolu ma ne leen ce que vous êtes en train de me dire là ce sont des accusations très graves. te ñi ko def su fekkee vos propos sont avérés et que message yooyu am na ñu ko yónnee parce que parfois cas bëri tamit mën nañu yónnee message bi ni ci suuf COCC loolu yëpp c' est de bonne guerre on sait jamais mais quel que soit alpha mën na nekk tamit suñu camp mais quel que soit alpha au delà ci sanction administrative parce que conseil de discipline mënul jël leneen lu dul sanction administrative suspension dàq kese la mën a jël mais au delà de ça man dama leen ne auteur euh, message yooyu dañ leen war a poursuivre devant la parce que lu ñu def délit la boo xamante ne war nañ leen ci topp sanctionné leen su jëree ñu tëddi kaso ñoom ñu dem tëddi kaso ku wax loolu kon amul lenn lu muy ragal ku dem ba conseil de discipline di wax loolu kon kooku amul lenn lu muy ragal bu ma demee conseil euh, conseil commission d'instruction ma ne leen man Pape Abdoulaye Touré su fekkee dama def loo xamante ne dafa enfreindre li nga xamante ne mooy mooy règlement ak bonne conduite université bi mais na loi bi appliqué wu sama kaw dans toute sa rigueur donc parce que dama bëgg nekk exemple boo xamante ne du participer ci benn pratique buy ternir l'image de l'étudiant lépp loo xamante ne day ternir image étudiant ku ko def dañ la war a sanctionner parce que tey soo génnee ci réew mi ñu bëri dañ daan étudiants yi dañoo réew étudiants yi xamuñ seen bopp étudiants yi lu nekk rek ci lu ñaaw rek ñu ngi koy jël di ko teg ci deru étudiants yi te kenn defu ko lu dul une poignée de personnes nekk université terroriser université bi yëpp loolu je pense que ça doit cesser et pour mu cesser faut que ñu identifier les vrais auteurs leen mais tant que ñu ngi sanctionné ay ay ay ay ay innocent loolu du fa mës a est-ce que yéen am ngeen taxawaay bu ngeen jot a def ci ci kaw loolu dem ngeen ci yoon. tout à fait introduire nañ suñuy recours parce que décision bi ñun xamuñu décision lu mu doon di toppee nit lu mu deful te indiloo ko benn preuve indiloo ko benn preuve man nee naa ne li ngeen di wax nii muy injure yeeg yooyu doyen ngi nii toog mi ngi woon ci conseil ba na génnee téléphone am tapé sama numéro ci ci ci téléphone ban message ndax sama numéro yónnee na ko message bu am contenant des propos injurieux wala des menaces de mort wala des menaces pour brûler sa maison su fekkee am na au delà dàq leen ma université mais tëj leen ma 10 ans de prison loolu mënul am benn message laa yónnee doyen te bu ma paree ci moom fa laa yem man ak doyen nous ne sommes pas des amis nous ne sommes pas des camarades man ak moom nekkul dañuy waxtaan chaque jour via whatsapp sekkuñu ko donc message de protestation laa amoon lu ma ko doon yónnee bu ko ko yónnee ci laa ca pare. donc su fekkee dafa am ñu def loolu man Pape Abdoulaye Touré je ne vais pas payer les pots que je que, que je pas cassés ñeneen ñi aussi tamit muy les étudiants en licence 1 ñu nekk première année nekk deuxième année ñu bëri ñu aj leen ñooñu yàq nañ seen avenir ci loo xamante ne defuñu ci dara su fekkee dafa am lu ñuy wax ni dëgg la ci ñoom nañu dem euh, birgarde de cybercriminalité yóbbu fa numéro yi numéro bu fi nekk soo koy jënd léegi da koy da nga koy identifier dinañ mën a retracer nit bu yónnee kii bi kan la exactement mais kooku ñu teg ko daan yu ci war mais di sanctionner innocent comme ça parce que tout simplement seen i doom bokkuñu si seeni i jarbaat bokkuñu si seeni mbokk bokkuñu si loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax bu mbir mi xewee attaqué nañ mbir mi ci yoon dugal nañ suñuy recours au niveau de la chambre administrative de la cour suprême ñu ngi xaar teg gëm nañ ñi ak 100 pour cent que dinañ am gain de parce que lii c'est une décision arbitraire illégale et parfois même politique d'accord ci kaw noonu euh, dama lay laaj nga gis euh, génn kii di ministre bi euh, lan mooy sa appréciation par rapport à ça moom nee na sanction yi lu war la. ministre bi moo gën a irresponsable ci ministre yi ñu mës a am ci. li ngay wax rëy na de. te maa ngi jégalu maa ngi ciy tub ministre boo xamante ne moom bu mu fi nekkee ba léegi benn lenn mooy mission am yàq enseignement supérieur jaxase étudiants yeeg population yi parce que lu ci bëri étudiants yi di jug di fépp il est le responsable. fan yële paase yéen a ngi dégg cees USEN mooy université Sine Saalum UCAD ñëpp a ngi doon jug di ñaxtu lu ñu doon ñaxtu seen i droit la te du leen du leen faale maanaam lu muy wax ci presse bi ak soo demee toog biiroom lu mu lay wax bokkul dangay ñëw gis mel ni comme si que c'est un kii qui parle avec avec toi non honnêtement non lii wallaay di waat di fëgg taw du ma ko def dem leen fu leen neex def leen lu leen neex di wax ak ñoo xamante ne comme si que ñoom duñu duñu say duñu say nawle kooku mënuñoo diriger mënul yor enseignement supérieur te yàgg naa ko wax koo xamante ne tu es incapable de d'orienter tous les bacheliers yu am seen bag nga nga orienté woo leen ba pare di wër ci plateau yëpp naan ori on a les bacheliers or que c'est archi faux kooku il ne mérite pas d'être le ministre. tanda parlant day mel ni da nga da dara ministère parce que yow jotoon nga bokk ci ñu doon xeex ci euh, mbir moomu li étudiants yi ñu orienté woon étudiants première année yi. ministre bi bokkuñoo ak moom famille bokkuñoo ak moom dara amul yor kër. joxuñu ñu lekk joxuñu ñu ñu naan amul lenn luñ ko jàppal mais problème yu am université moo bëri tellement que te il est incapable de résoudre les problèmes problème surpeuplement problème taux d'échec bi nga xamante ne dañ koy multiplier par dix par rapport ak taux de réussite bi insuffisance ñi euh, nga xamante ne mooy enseignants yi war a encadrer euh, étudiants yi amphithéâtre yu doyul restaurant yu doyul mauvaise qualité de la restauration insécurité bu am ci biir université bi loolu noonu yëpp def ko priorité mi ngi wër di politique di topp Macky Sall ci ay tournée économique alors que au même moment étudiants yee ngay xeex soo demee tey Thiès dañuy dem euh, ñoom seen nouveau bachelier yi ba léegi mënuñu commencé ndax lan ay batiment yu inachevé nga dem université Sine Saloum nga xamante ne c'est une c'est une université prématurée bu pareegul ñu orienté fa ay nit tey étudiants yi fu ñuy defee TD mooy ay lycée ak ay CEM yu nekk aux alentours ñoom dañuy génn université bi parce que amuñu ay salle di dem di àbb ay lycée ak ay CEM di fa defee seeni i cours kooku nga teg ne c'est un ministre responsable au même moment gis nañ ñu mu def COUD rapport nag bi épinglé na ko COUD donc kooku nga xamante ne deram setul loxom setul kooku mënul yor enseignement supérieur kooku mënul wax mënul koo xamante ne day danga santeeg étudiants yi kooku mënul saafara jafe-jafe étudiants yi moo tax position bi bettu ma moom xam naa ne suñ ko newoon kaay nga jël benn étudiant nga tëral ko rendi Pape Abdoulaye Touré lay doon ba pare il se permet de dire que euh, euh, les universités sont autonomes mais en quoi les universités sont autonomes si recteur première autorité universitaire il est nommé par décret yéen bi ngeen xamee Macky Sall ba léegi mos ngeen ko gis muy nommé koo xamante ne nekkul allié politique am suñu directeur bi laaj ko bu waa faculté des lettres bu ñuy protester seen. Euh, élection yi résultat yi bay këf micro professeurs yi bay wër di grève di def ay ngeen di tubaab ci biir université moom fan la nekkoon recteur fan la nekkoon parce que mi ngi woon di def tournée économique ak Macky Sall foofu la toog di woote daan calmer leen maa ngi bàyyi sama tournée économique ñëw wuyu si leen donc kooku c' est un politicien purement et simplement le recteur de l' lu may wax dama koy assumer parce que moom loolu la doon moo tax du ñu am euh, lu ñu bett suñu gisee mu dem ba conseil de discipline nit ñi war a jël ay sanctions su ñu ñi su ñeneen ñi laajee un an moom muy laaj ay six ans wala ay cinq ans. six ans cinq ans. ay preuve yu leer lañ ci am parce que ñun ay am nañu woon ay représentants d'étudiants yu fa nekk saay suñu ajee nit cinq ans mu fëgg ci temple bi kontaan xàkkataay kooku il est un recteur boo xam mérité wul diriger. étudiants yi parce que le recteur en principe dafa war a nekk baayu étudiants yëpp nekk parent étudiants yëpp ba pare di conseil étudiants yi pour ñu jàng mais suñu ajee étudiant cinq ans nga fëgg ci taabal bi siñ say bañ reetaan kontaan ñu aj étudiant ngay reetaan tu ne mérites pas d'être un recteur je suis désolé donc daanaka kat yow bañ lay euh, convoqué moom moo ngi woon foofu moom mooy mooy mooy le président de du conseil bi mais léegi yow euh, am na ñoo xam ne ñoo ngi naan euh, yow dañ dañuy ci ay ci wéewu bëy laa ko for ñoo ngi naan tamit mm, yow yaay étudiant boo xam ne yaa foroon yaa këfoon micro professeur boobu noonu dama bëgg nga leeral loolu askan wi di la sitaan. waaw yow xam nga yow étudiant te yow aussi. man man askan yi sitaan ñoom moo ñoom mu ñor de ñoom ñoo laaj ci question boobu. mais lu waay gàtt dégg-dégg nag xam ni ki këfoon micro bi kooku faculté des lettres la ne man lu si sama yoon ci faculté des lettres ba may wër di këf yi mais euh, ay micro professeur apprenti juriste de la faculté des sciences juridiques et politiques fac droit laa nekk te fac droit loolu amu fa on pas problème avec les professeurs on n'a pas problème avec l'administration lu fa am mooy peut-être yu ñuy toppee beneen cas bi muy acte de vandalisme ak ay violence mais ñun amul benn acte boo xamante ne def nañ ko lu mooy envoyé message de protestation en notre doyen ñu gis ci benn décision bu boo xamante ne dafa non décision bu doy léegi li ma bëggoon euh, jeexale mooy di sa famille naka lañ dundee décision bi. waaw métti xam nga ni ñun moom bon franchement lu metti la mais tamit ñu gëm yàlla ñu gëm yàlla lañu te en plus xalaatoon nañ ko xaaroon nañ ko aussi lii moom man moom bettu ma man lu man sama kaa méttiwu ma parce que man xamoon naa ni nguuru Macky sàll fu mu jaar dina ma dàq université man loolu xamoon naa ko. li nga wax nii fu leer laa ko teg. activiste baay wax wala étudiant baay wax. non pour l'instant activiste bi mooy wax parce que lu tax activiste bi di wax mooy que ni man en l'occurrence d'une année 2019 2020 jàpp nañu am naa fi cinq arrestations cinq arrestations yu arbitraire am naa ko fi am naa fi deux mandats de dépôt dem naa kaso ñaari yoon am trois procès yoo xamante ne man ak nguuru ma Sall la man ak état du Sénégal ñoo ma doon reproché yoo xamante ne defuma ko su ma demee juge bi daf may libérer purement et simplement daf may relaxer vous loolu bu mu amee loolu yëpp ce sont des stratégies de pour de d' pour xupp la pour nga bàyyi mais man saay suñ ma jàppee génnee ma man ci laay gën a ànd ak sama engagement ak sama détermination loolu dama koy assumer loolu bu mu weesoo ñu xam ne foofu baaxul bu may xeex bu may xeexal les étudiants les bacheliers non orientés di xeexal les étudiants yi nekk UVS ñu orienté leen fa état bi yóbbu leen fa ne du leen jox seen i machine ñu wër ba médiatiser affaire bi ba ñoom ñëpp tey ñu rek rétablir seen i seen i woo nañ ñu fi conseil économique social et environnemental euh, xaw ma nu ñu koy waxte CSE sa euh, Touré moo nekkoon présidente bi ku ñuy wax Cheikh Ba moo ñu moo ñu recevoir on jour boobu. Cheikh Ba ban Cheikh Ba. Cheikh Ba mooy je pense que moo nekkoon directeur cabinet wu mais moom moo ñu recevoir ci biir conseil économique euh, sa carte de visite est là mu ngi fii sama pochette ba léegi ma jàpp. vous voyez un bu mu ñu recevoir ñu wax ko suñuy jafe-jafe kii dafa bu mu paree dafa ma woon mu ne ma yéen yow li ngay def nii taaral sa bopp la soo bëggee mun nañ la utal visa nga dem Europe nga wala Canada nga dem continuer sa jàng nga tekki teral sa ndey ak sa baay c'est-à-dire corruption boobu man dama ko lank ba tëdd ci daaj bi. ce que tu fais là des graves propos de yi ngay kii nii. je prends les étudiants de l'UVS les bacheliers non orientés à témoin ñun nous sommes des apprentis juristes du ñu plongé ci ay accusations yoo xamuñu ko. du ñëw fu ci kaw gaa daf leen doon jéem a corrompre. ma ma la wax nii fu leer laa ko teg moom il nous même mon euh, euh, kii euh, prouvé que ni ñaata nit la jàppale pour ñu dem Europe donc suñu bëggee moom mën nañu jàppale pour ñu dem continuer suñu jàng mais ñun loolu suñu éthique ak suñu déontologie mun permettre ñu ko su fekkee ñoom seen nguur gi dafa manque éthique ak déontologie ba lu waaye neex def fu xaalis duraate rek nga jàdd fa ñun loolu doxuñu si te kenn gën a ñoo bëgg nag dem Europe jàngi.